waaw ñu ngi nii le Soko Sine ma ngi nii Gamou Gueye suñu coach idée ngi Soko Sine Gamou Gueye yéen ñaar ñëpp la laamu laamu jëlee namm waaw mais du suñu si adversaire la yow boo ñu xoolee xam ne ñu ngi entraînement chaque jour tam wal dañuy yëpp stade bi ba mu fees sa jëw nee nañ yi neen ba nga bëre Soko ba léegi gisuñu Gamou Gueye waaw mais man maa ngi ñëw si lambay maa ngi ñëw chaque jour comprendre nga mais du chaque jour ngay ñëw pour mën a wàcc si suuf yene sa yene lambe da ngay ñew tok sétane yene nga ñew pour wàcc bàkkoox yoy non comprendre nga loolu la démé promoteur dañu taxul sa combat wala mu démé non promoteur sa jour ñu ooma man aw ma problème combat problème adversaire la am. man ah, boy ñoy daw. wa problème adversaire la am yow xam nga man bu may bëre man damay mobiliser. kon nga. waaw damay mobiliser damay bëre. comprendre nga mais instant bi ci adversaire la dess kon kan lañ kon kon ku mel kan kan ñu doxone instant bi ni non xam nga damay bëgg wax ay tur. waaw damay bañ a wax ay tur mais. mooy ñan tax ñuy daw. a tudd ay tur yu bëri nga soxla. non baa ma noonu rek. ku ma làmb booleel ma bëree moom incha allah rabbi kontaan naa de.